mbokk yi jaa ngeen jëfa seen teelu ci seen chaîne Caxabal TV làmb ci beneen i anam waaye ñu jox leen ay xibaar li soxal ci wàllub làmb am na lu xew ndaxte am na ñaari combat yoo xamante ni jamono ji ñu ngi koy dox te léegi mu daal di taxaw mu nekk combat yu mag diggante Boy Niang ak Siteu ña ngi ci doon waxtaan ba tax na am na émission bu amoon benn télévision ba kii di dugal papay Boy ñaa woote woon ci téléphone na ñoom duñu mës a bëree ak kii di Siteu Siteu Ndaxaar ba ci kanam waaye xibaar bi nga xamante ni toq na mooy que ne ña ngay waxtaanee boobi le waaye ci benn mbër bi rek la daal di tagee ban mbër la mbokk yi mooy ci waa kër Siteu dañu waxoon ne ci waa kër booy ñaa la combat boobu taxawee waaye léegi déggoon nañu waa kër booy Niang dëggal ak booy Boy Niang Stathoff d'accord nañu pour bëri ak Siteu mais waa kër Siteu fi mu nekk nii ñoo taxaw ca la combat bi cangee kon jàpp nañ ne xëy na waa Kër Siteu bu ñu waxtaanee promoteur bi bu baax xëy na combat boobu dana daal di taxaw waaye waa Kër booy ñaar ñoom ñoom nangu nañu pour bëre ak kii di Siteu beneen combat tamit koo xam ne ñu ngi koy dox muy rëg-rëg ak Lac de numéro 2. xam ngeen jamono ji Lac de numéro 2 ma nga ca France di entraîner di waaj yeneen combat jamono ji ñu ngay waxtaan waaye ci combat boobu. fa mu taxawee mooy ci waa këru Lac de numéro 2 Lac de numéro 2 ak staffam jamono ji ñoo kaleegum combat boobu waaye waa kër rëg-rëg ñoom d'accord nañu pour bëri ak Lac de numéro 2 léegi nag waxtaan yooyu ma ngay sotti xëy na waa kër kii nga xamante moom mooy Siteu Tarkinda ñu waxtaan ak promoteur ba daal déggoo kombaa boobu mën a taxaw ndaxte waa kër booy Niang ñoom noppi nañu pour bëri ak kii di Siteu waaye tamit rëg ak Lac de Guiers numéro 2 ñu ngi xaar waa kër Lac de Guiers numéro 2 bu ñu d'accordee fii suba wala gannaaw suba combat boobu war naa taxaw ndaxte waa Lac de numéro 2 ñoom ñoo kale seen combat seen diggante ak kii di Reug Reug jaa ngeen jëf yeneen xibaar fii ak suba incha allahu rabbi